ba jamono yu paase rek boo tuddee Casamance rek xel yi dem ci xeex xel yi dem ci rébellion xel yi dem ci voilà ay coupe ñi dagg tali ak yooyu waaye nag def naa loolu moom lu weesu la wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne saa su ne rek ñoo ngi Casamance parce que man na yàlla def na weer wu ne bu ma demul benn yoon dem naa ñaari yoon euh, jàmm fa am jàmm fa am jàmm ju sax dañu ñaan yàlla rek xanaa mu jàppale ñu euh, moom mi nga xam ne moo mën lépp jàmm gën a euh, law ci biir euh, région naturel de Casamance gën a sax ci région bi xam nga jàmm moom yombut lu tax xeex boo amee xuloo am rek pour tàppe xol yi boole xol yi ñëpp baalante ñëpp bàyyi ku nekk lu mu jàppoon ba dellu nekk ensemble loolu liggéey la waaye nag foog ñu sant yàlla ndax euh, tey jii ni may wax nii ak yow mun nañ jàpp ne jàmm dellu si na léeg nag mu am ay yëngu-yëngu tuuti parce que xam nga lu mel ni situation yi moom euh, euh, samba boy yi sax mën nañu léeg-léeg jëm di def ay affaire parce que ñoom seeni intérêt moo ciy nekk waaye nguur gi nguuru Sénégal taxaw na ba nga xam ne sécurité mën nañu wax ne am na fépp ci Casamance euh, dañuy jàpp ni état du Sénégal en tout cas depuis 2012 coow li bëriwul de wax ji bëriwul waaye ñoo ngi liggéey ci suuf euh, ba nga xam ne waxtaan waxtaan bi mën a am boole ci ñëpp nag beddewuñu kenn. Euh, waxtaan boobu ñoo ngi koy def ngir mën a saxal jàmm ji exemple euh, président i Sall ak état du Sénégal bi nga xam ne moom lay diriger dañu am beneen méthode bu bees parce que avant coow li da doon bëri wax ji da doon bëri ci rajo yi fu ci ne ku nekk jóg di wax waaye léegi mbir mi ci suuf lañ koy lijjantee euh, gis naa mën nañ jàpp ne résultat am na parce que même léeg bu ñu déggee yëngu. waaye du doon lu am yenn dayoo yi te aussi euh, xam nga ne yàggutoon dix-neuf heures bu jotee timis bu jotee rek ñu daal di tëj tali yi waaye léegi ba minuit ba trois heures du matin heure bu la neex nga dox dañu ñaan yàlla rek mu jàppale ñu euh, ba parce que yàllaay maye ba loolu mën a law waaye di wax ni état Sénégal def na liggéey bu am solo. Euh, liggéey bu am solo mooy ci ban waaw benn bi mooy ak nit ñi mais beneen bi tamit di def ay réalisation ba nit ñi gis seen bopp ni ah ñun gis nañ suñu ci li état bi di def li état bi di defal Sénégal gis nañ ko ci parce que le ci Sénégal la bokk dafa euh, benn sentiment d'appartenance bi nga

déggu nañ ci loolu di ànd ci loolu te mu nekk li am solo euh, damay wax ni jàmm du question guerre amul rek ñu ne jàmm am na guerre mën naa ñàkk waaye bu nit ñi sonnee torox amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan mënuñaa faju mënuñaa jàngi yóbbu seen doom ñu jàngi ah loolu jàng loolu jàmm dafay artificiel rek mais du doon vrai jàmm mais état baa ngi liggéey ba nga xam ne wax dëgg yàlla lépp li ma wax nii mooy mën a jàngi mën a faju mën a liggéey am loo lekk am loo dundal sa jaboot ñoo ngi créer les conditions néew ma lépp yemb na de waaye ñoo ngi créer les conditions loolu mën a am ci tënk rek yokkute développement Casamance mooy andi jàmm waaye tamit jàmm bu amul développement mul ta am ñaari dañu lëkkaloo il faut maanaam nit la rek buy doxee ñaari tànk jàmm ak yokkute ak développement yi sant yàlla loolu mu ngi avancé bu baax a baax a baax tey nii boo demee Casamance. Euh, wax dëgg yàlla ah, da nga gis dëkk bi nu mu rafetee ni mu naatee dëkk bi nu mu neexee ah dangay nga gis ne vraiment euh, jàmm vraiment am na fi. barki démb rek maa ngi wax ak benn waaye boo xam ne après Ziguinchor la dëkk mooy village am côté frontière Guinée-Bissau moom village bi dañ ko abandonné woon maanaam ñëpp a daw dugub biir Guinée-Bissau keroog la moo naan ma ah ñun suñu zone bi fa ngeen defar ñu tali nag wala benn piste rek parce que léegi nit ñaa ngi si nit ñaa ngi ñëw commencé liggéey seen tool yi ak ah bu soobee yàlla question yooyu il faut ñu traité ko parce que loolu la ñuy ñaan yàlla bu demee ba nit ñi ñi xam ne ça fait plus de 20 ans plus de 20 ans génne nañu seen village daw nekk ci yeneen dëkk yeneen beneen euh, beneen pays ak coono yi nga xam ne yow boo bàyyee sa village ak nit ki nu mu bëggee village nga xam ne moom rek la am bi euh, lépp lu mu am ci yàlla def na foofu la fa amee moo xam. Euh, fu muy baye mo xam ay jurum mo xam këram lepp nga bay ko dem benen dekk bo naré bay ñu abal la nga bay ah mais attends mu né délu ci da ngay sant yalla nit ñaangi délu ci té te état mo ngi accompagner délu ci bobu ci naka moy lu ma wax ni rek par exemple defal ay piste wala tali tabax classe ko xalé xalé mëna a am fu ñu jàngé tabax euh, ben poste de santé fu nit ñi feebaree ñu mëna leena a faj et cetera et cetera loolu moo tax la jamm ak Euh, développement dafa dafa lëkkaloo dafa ànd.